Boun Amadou Ba Boun Dionne Ablaye daaw euh, Ali Ngouille Ndiaye Abdoulaye Diouf Sarr euh, c'est c'est qui le meilleur profil capable de de de, de porter la la la majorité à la victoire. pour man euh, le meilleur profile mooy ki mën a gagner. <laughs> ki kan moo mais mais ci ñoom. kan moo am kan les chances non kan moo parce que mënoo xam nga mënoo spéculer parce que aujourd'hui man defuma benn étude pour wax ne diw la war a diw donc tout loo ci wax rek. spéculation lay doon maintenant mën nañ mën nañ def quelque analyse alors d'abord d'abord en terme en terme de notoriété. Mhm. kan moo ci ëpp notoriété kan la sénégal yi gën a xam parce que tamit booy dem élection notoriété am na ci solo ok. Amadou Ba en terme de notoriété Amadou Ba moo ci ëpp notoriété ñoom ñëpp bu ñu waxante dëgg Amadou Ba moo leen ëpp notoriété en terme d'expérience gestion gouvernement. mën nañ jàpp aussi ne Amadou waa am na benn avance ci ñoom parce que quand même nekk na ministre des finances nekk na ministre des affaires étrangères DG impôts et domaines nekk na directeur général des impôts et domaines nekk na premier ministre donc boo comparé moom il sort du lot maintenant defuma benn sondage pour xam bu dee moom la ñu présenté ban chance la am wala ban chance la am alors Abdoulaye Daouda Diallo bon Abdoulaye Daouda Diallo euh, pour man euh, dafa am benn inconvénient mooy en terme de notoriété amul li euh, Amadou am cest à ni nit ñi xamee Abdoulaye Daouda Diallo en dehors de l'APR waxuma waa militant APR ah, ñi nga xam ne ñoo ñoo bokk APR euh, Amadou Ba la nit ñi gën a xam que Abdoulaye Daouda Diallo maintenant Abdoulaye Daouda Diallo moo njëkk a bokk. APR que Amadou Ba bien sûr moom moo ko fa njëkk. et c'est pour cela que Abdou Mbow il paraît que ci secrétariat national bi il a il a parlé euh, d'autant de, de, de militants authentiques non militant authentique moom. loolu yaa ce débat là. <laughs> waaw non loolu xam nga li li sénégalais di wax li sama benn xarit di wax rek nee na sénégalais lu mu bëgg xeex wutal ko tur. <laughs> maintenant bu dee bu dee dañu bëgg xeex waajee mën nañu wut benn tur boo xam ne moom lañ koy xeexee mais li wërte wóor mooy ñoom. en tant que coalition seen intéret mooy jiital koo xam ne mën na gagner. mais continuez sur Ablaye Daouda maintenant maintenant Ablaye donc moom c'est euh, c'est un historique de la l'APR euh, amul notoriété bi Amadou Ba am et puis aussi base électorale am muy maanaam. Podor amul poids bi Dakar am par exemple bi nga xam ne Amadou Ba mi ngi fi. maintenant. mais Podor c'est deux cent presque trois cent mille euh, électeurs de. Euh, Dakar c'est combien. Dakar c'est combien. mu ngi nekk ci trois presque trois millions. bon d'accord <laughs> d'accord <laughs> d'accord euh, donc donc pour ban Euh, je me euh, pour man le le le le poids de Dakar le poids électoral de Dakar est très très important et je pense que aussi pouvoir vendre aux gens l'idée d'un président de la République qui pour la première fois. et origine et de la région de Dakar sa peut faire quelque chose ça peut avoir de la gueule. ça peut avoir de l'impact. Ouais, ça avoir de la gueule. ok alors euh, Aly avec son son son son Bawol son nu mu tam pour man premier son premier problème mooy poids électoralu euh, dëkkam donc Linguère pesewul réellement. amul amul doole boobu sur la balance électorale ci Sénégal mais Aly Ngouille moom problème de notoriété bi Abdoulaye Daouda Diallo am moom amu ko moom quand même il est il est euh, parce qu'il a été ministre de l'intérieur aussi euh, di post bu am solo Sénégal en général ñu bëri ñu nekk ministre de l'intérieur am na lu ñuy xam am na lu ñuy jàpp lu war a mën a tax ñu jàpp réew mi téye ko ci seen loxo mais Aliou Ngouye je pense que aussi premier handicap ou handicapam bi gën a sérieux mooy le fait que euh, Linguère sur le plan électoral ci sama gis-gis du moom mooy permettre nit mu mën a gagner une élection présidentielle au Sénégal Boun Abdallah Dionne euh, Boun Abdallah bi mu disparaître dafa yàgg donc euh, déjà man xawma Boun Abdallah fan mooy fan mooy base politique. Gossas il est de il est de waaw bu ah. moom jàpp ma ne tamit euh, am na lu rëy rëy lu mu peser sur l'échiquier politique et puis Boun Abdallah aussi dafa disparaître depuis quelque temps man déjà le fait que ñu koy prêter sax des ambitions présidentielles dafa xaw a dafa ma xaw a jaaxal parce que euh, dama comprendre woon ne un moment dafa retiré wu parce que dafa amoon des problèmes de santé donc. Euh, ah il va très bien. Euh, alhamdulilah. va il va il va très bien alhamdulilah ah. mais bon retrait boobu mu defoon mu yàgg mu nekk derrière bu bëggee ñëwaat du ma ne mënul nekk mais dina jafe. mais sax mais ngay wax base euh, électorale est-ce que tamit c'est pas un argument qu'on peut euh, d'ailleurs sax boo boo waxee Amadou Ba euh, c'est le meilleur profil les gens te disent écoute Amadou Ba lan mooy lan mooy base am. <laughs> bien sûr mais Parcelles mooy base <laughs> jusqu'à preuve du contraire maintenant je dis encore une fois bu ñu basé woo ci élection locale yi. ak législative yi nga xam ne Amadou Ba était en retrait aussi. il était en retrait mais l'Alliance pour la République n'a pas gagné aux Parcelles Assainies ok le Benno Bokk Yaakaar bokk n'a pas gagné aux Parcelles Assainies. ni Dakar ni Dakar du ci municipal du ci local mais aujourd'hui il est clair qu'en termes de notoriété benn Amadou Ba moo leen ëpp notoriété ñaar. fi ñu ko mën a féetale comme base électorale li mu mën a peser en termes d'électorat au Sénégal euh, fekk ci ñeneen. parce que 2019 il a gagné Dakar. 2017 il a il a gagné a gagné Dakar d'ailleurs 2016 la la la APR njëkk a gagné Dakar lors du référendum. c'était la première victoire de l'APR à Dakar. 2017 2019 mais 2022. au local et aux législatives ils ont ils ont perdu Dakar euh, certains disent que ils n'étaient pas dans les conditions pour euh, pour pour gagner euh, Dakar et la capitale mais est-ce que loolu du doon faiblesse ci moom. non am na sax ñu ne da cee xëpp suuf. waaw au local. waaw xaw ma sa dëgg la wala dëgg. mais am na local waaw les les partisans de Diouf xëpp suuf. moom moo def en sorte que. waa ji bañ a bañ a gagné waa ji baña a euh, bañ a falu mais lu mënti am tey. boo jëlee ñoom ñëpp ñi nga xam ne dañoo jàpp ne war nañ mën a nekk candidat pour euh, Benno Bokk Yaakaar il est clair que moom am na benn avance bu ñu bu ñu choisiroon Amadou baax vous pensez que mën na euh, réaliser l'unité wala parti bi mën na mën na mën na mën na tas tuuti. Euh, loolu mënu mënuma ci mënuma ci prononcé wu li wërte wóor mooy candidat bu ñu mënti choisir ci Benno Bokk Yaakaar boo amul soutien euh, président benn soutien bu actif non seulement. dina jafe pour que nga réunir la famille de benn Bokk Yaakaar mais pour man pour nga gagner sax du mën a nekk. maintenant Amadou Ba ak keneen ku mënti doon bu dee dafa war a mën a gagner élection fii ci Sénégal war na mën a waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo ñoo d'accordul ci choix bi ñu porté ci moom pour mën leen mobiliser. pour ñu mën a gagner ay élections d'ailleurs dégg naa ay opposants ne bon Macky Sall su bëggee euh, maîtriser assemblée nationale bi mën ko dissoudre et tout calculam mooy dafa bëgg euh, ku ci nekk ci ñi ñi nga xam ne mu mën laa téye mu mën laa dig dara mu mën a teg sa loxo dara ne la yow bu ñu gañee kii mooy doon lii bu ñu gañee kii mooy doon lii ki bu ñu gañee kii mooy doon lii pour que après ñu mën a ànd dem parce que bu ñu àndul ils ont commencé à montrer sànq benn image boo xam ne c'est une image catastrophique mooy xeex boobu ñu xeex mais bu ñu àndul pour man ils n'ont aucune chance.